ba aaya bi jeexee walla ñaari baat ba aaya bi jeexee ñaari baat yooyu lañu fas yéene jox suñu député ya ñu war a teewal ci pencum ndaw réew mi di assemblée nationale mu doon yóbbante ba nga xamante moom lañ fas yéene yóbbante député yooyu ngir ñu taxawal ñu tànk bi mel ci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 ma samp ko ci kaw suuf si mu di doxantu fa ka neex muy dem fa ka neex buy dem motaar dar ko buy dem garde corps dar ko ndegam léegi mu ngi ci biir minister ya buur fal noonu la Yuusuf nekkee ci biir dëkk bi mu di doxantu fa ka neex buur yàlla ne nusiibu bi rahmatina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 fu mu toll bulay lay keral noonu la lay keral waaw waaye imaginel boo koy fay nga jël guddi lëmm ñu jël guddi waxtu ba muy géem a dugg mooy dix-neuf yaa guddi ba minuit yaa guddi ba une heure matin yaa guddi ba keroog six heures du matin ba sept heures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 waaw amaana du ñàkk ñu géem a décortiquer aaya ba nekk ci njeexantalu suratu Duha moone ne yàlla ne yow sama jaam bi wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis waaw wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis yow sama jaam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 géem góor-góorlu tënk suñu bopp lépp luy suqat jàmm ak salaam ndax ñu ni yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi saa iliina mawla jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahumma aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicma almawla wa nicma annasir